mbokki téléspectateur Equivox TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku si yéen ah di leen bëgg yéen ñëpp di leen balu ak si àjjuma ji di leen baal di ñaan yàlla boole ñu jégal te nangu ñu sunu ay jaam barke yonent bi sallallahu alayhi def jàmm si Sénégal waaye def ko si àddina bi yëpp léegi nag ginaaw bi mu leen nuyoo ba pare dama leen di bàyyi ñu dem seetaan revue bi liñ ci wax wala bokk ñu xool li journaux yi indi tey ñu dikkaat ak yéen si waxtaan bi asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 4 juin 2021 dañuy okkin ci suñu lamb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi di suñu lamb nag moom tey xëtam mu njëkkam ca xëy fesal moom moo di makan mbeng di doomi gaston mbeng makan nag moom la mu xëy di wax lenn la maanaam daal fi mu nekk nii moom ñoom fi mu nekk nii daal pare la ñu def maanaam taxaw jatu ni ab soccet la ñu bëgg daal mooy mbër yi ñu tëgg maanaam kaleen dese ñu bëgg ko jox avance moom moo di Modou Lo nee na Modou daal su paree ngir bëree moom nee na makan nee na daal li am ba des daal pare nañ ngir jox ko ñetti avance maanaam mu téye parce que nag ñoom jàpp nañ ne fi mu nekk nii Modou gis nañ ne mbër yi ñu bëgg a bëreeloo daca da ca bokk jàpp na tamit su keroogee moom Modou Lo bu ko neexee mën na am mu jàmmaloo ak Balla Gaye Eumeu Sène wala Bombardier euh, ama ama giri tamit jàpp na ne loolu lu leen intéressé la makan ba tey mooy wax di doomi Gaston Mbengue waaye am na loo xam ne moom jàpp na ne fi mu nekk nii ci jamono jii muy waxee nii moom makan ne na intéressé gu leen moom moo di combat Lac de Guiers numéro 2 ak Tapha Tine nee na moom na bokkagul ci seen ay plan xam ne moom ko ba ko muy Balla Gaye numéro 2 Balla moom soo bëggee dégg-dëgg yëglikaay bi na tey ak tamit plan ya nga xam ne moom la teg ci ñeenti combat yi xam ne moom la fas yéenee bëre premier combat ba mooy le mille vingt 2021 digganteem ak ka nga xam ne moo di Bombardier duñ ca yem beneen ba ca des mooy digganteem ak Boy Niang janvier 2022 la ñu fas yéene bëre beneen combat boo xam ne tamit jël na ko moom Balla digganteem ak Gris Bordeaux août 2022 wala boobu mois de juillet 2022 la ñu fas yéene bëre beneen combat boo xam ne tamit ba tey Balla jël na ko muy ñeenteele avance am muy digganteem ak Eumeu Sène booba nag moom moo nar a mujj ndax booba moom deux décembre 2022 lañ ko fas yéene bëre mel ni ki fi mu nekk nii moom soo bëggee dégg dëgg moom ah Balla gay numéro de daal defar na plan nañ wala boog defar na ay plan ba teg ko sunu làmb xëy tey ñëw dinu wax lu mel ne ki noonu ñii moom maanaam seen combat planifié nañ ko ba teg ko ba jàpp dat ba muy diggante ka nga xam ne nii moom moo di seen numéro 2 ak Franc combat ba léegi le 19 juin lay am am na koo xam ne nag moom ab coach su la di Ahmed Konaté xëy na tey ñu di ko ca laaj mu cay wax coach su daal la mu wax moom Konaté daal ne boo bëggee dégg-dëgg moom combat ñaar ñooñ muy Tyson numéro 2 ak Franc favori ñu ne ko coach kan mooy favori bi yow Ahmed Konaté Ahmed ne na favori bi du kenn ku dul Tyson numéro 2 nee na soo bëggee dégg dëgg mu diggante Tyson de ak Franc ka nga xam ne moo di Tyson numéro de moom moo di la nga xam ne nii moo di favori ca boobu combat yëglikaay ba moo xëy tey ñëw wax nu lu mel ni ki noonu ñeneen ñoo xam ne nii moom fi mu nekk nii comme ànd daa mel ni dafa xew ñu nga boo séenee boole seen bopp muy waa Caaroy maanaam daal fusionné la ñu fas yéenee def Caaroy Cap Vert rek Caaroy Ndigal ak yu mel ni ki noonu daal daa mel ni amatul ñoom daal la ñu fas yéene def mooy àndandoo doon benn di liggéey di xàccendoo di dóorandoo waaye likkaay ba nag mu ngi xamal ne ànd booba moom bàyyi ma njoon bokku ci ndax moom mun nga des a gëm sa boppam ba tey daal maanaam caaroy gëm sa bopp jooja mu sañcoon daal moom na na ca lay des toog ca di liggéey moom Baye Mandione keneen koo xam ne nii moom liggéey na ba wane boppam muy général Malick ma nga xam ne nii moom moo dëkk ca Malick di mbër moo xam ne drapeau chef de l'état bi bokkoon na ci ca région de Fatick maanaam doon pesé cent vingt kilos yëgli kaay bi ne daal double vainqueur du drapeau chef de l'état bii daal di général Malick soo bëggee dégg dëgg moom la mu wane ca drapeau chef de l'état ba moo tax yëgli kaay bi nu xëy xamal ne daal ñu ngi koy xaar nag mu wane lu mel noonu ci lambi dóor ji ndax ku ne xam ne ne digganteem ak fils de Balla Assane Ndiaye ko tëgg te loo xam ne ne nii dootul yàgg maanaam combat ba mu léegi mu ñëw yi nga xam ne nii moom yegg si na ba pare boo bëggee dégg-dëgg suba ci samedi ji lay njëkke diggante Ndandi Fall ak ki nga xam ne nii moom moo di Dame Sène loolu moom bu ñu yeboo xaar ko suba tamit la fas yéene am boobu combat benn combat boo xam ne nar na am tamit ci weekend bi mooy ki nga xam ne nii moom moo di Fils de Zallo ak Aboy loolu tamit Rufisque Tëngéej lay amee waaye beneen boo xam ne tamit bu rëy rëy la boo xam ne dañ ko doon xaar depuis daaw ba ren waaye moom tamit dimanche lay am ca arène nationale ka fa jaar moo di waa Thiam production mu war a dox ci diggante soq ma ngeen xam mu pikin ak gàmmu géy mu tëngéej yëglikaay bi ne noonu daal soo bëggee dégg-dëgg maanaam weekend bi kon nar naa jax nar naa neex yëglikaay ba di sunu làmb moo xëy tey ñëw di nu wax lu mel ni ki noonu leneen loo xam ne nii wala beneen yëglikaay boo xam ne moom moo di record buñ fa demee kan fay fekk ba tey mel ni ki nag ginnaaw ba ma kan waxee ca sunu làmb maanaam ka nga xam ne moo di way juram moom di Gaston Mbengue yëglikaay ba xëy na tey wan ñu ko mel ni ki moom record lam nu xamal daal maanaam Gaston fi mu nekk nii mu nga yëngu bu baax a baax a baax ngir nu muy def ba décrocher Modou Lo ngir nag jox ko ay adversaire wala jox ko ay avance comme nam ko defee ak yenn mbër yi yëglikaay bi tamit ñëw na ci Aziz Ndiaye ma nga xam ne daal gis nañ ne combat yi Gaston di taxawal boog moom Aziz impliqué ko na ca bu baax a baax maanaam daal bokk na ca boog wala boog ñu ngi ko cay gis bu baax a baax sunu làmb nag moo xëy tey di wax lu mel ni ki noonu Eumeu Sène moom ginnaaw ba mu jëlee ay avance am yëglikaay bi ne na ajjuma ji moom fas na yéene dem fa nga xam ne ni moom moo di ca Gambia am na loo xam ne tamit nar naa am ci weekend bi mu di face à face boo xam ne Moussa Ndoye lay dajale ak Sa Thiès fa muy amee nag moo di ca 2STV ci dimanche ji la fas yéenee am yëglikaay bi moom moo xëy tey ñëw dina ko wax leneen loo xam ne nii maanaam lambi simple la day am ca jaare daal maanaam mise su un million de francs CFA am na fa ci samedi waaye fa nga xam ne moo di ca Adrien Senghor tamit sum production moo fa ñëw ak la nga xam ne nii moom moo di mise un million yëglikaay bi di record moo xëy tey ñëw dina ko wax mel ni ki nag tey la ajjuma yëglekaay bi di sunu lamb affiche ba mu mujj a def tey boo bëggee dégg-dëgg combat boo xam ne bu rëy lay doon le 4 juillet lay am diggante Gris 2 ak Abdou Diouf yëglekaay ba xëy na tey wan ñu ko jëy seen moo fa jaar waaye ajjuma ji daal loo ci mën a dégg tey moom wute na ak ajjuma ya daan am moom soo bëggee dégg-dëgg daal tey moom autre ajjuma xam nga dañ ne autrement waaye tey moom macha allah sant yàlla julli ci yonente bi ñaanal ñëpp jàmm ñaan ci réew mi jàmm ñaan ko waa addina bi waaye soppe yi tamit maa leen di ñaanal jàmm defe naa nag Youssou Ndour noon na man wax neex na lool waaye dégg moo ko raw kon mbokk yi loolu moo ñëwoon tey ci yëglekaay yi ah, moom lañ leen indiloon dégg ngeen yëglekaay yi suñu làmb ak record fi ñu génn tey waaye damay waat rek nuyewaat suñu partenaire bu ñaawul bii nga xam ne moom mooy Jador xam nga di wax ne comme li may wax rek moo gën ci kër yi gën ci restaurant yi gën ci fu mu mën a doon fépp fu ñuy defare wàllum lekk moom jàppal ne Zador fa gën ndax la lépp lay composé lekk Zador am na ko fi mu nekk nii boo paree sax teg sa ataaya Zador amal na utal na la ko muy warga Zador woo xam ne bokkul ak warga yi ngeen daan naan mu di leen indil ay problème yi jafe-jafe non boobu bokkul ak bii ngeen xam ne moom la Zador indi kon moom la ñuy àndal saa su ne muy nuyu ñi nga xam ne nii ñoo ñu suivre encore une fois. ah di leen balu àq nag tey nag def naa am na lu ma loo xam ne wax naa leen ko mais dinaa leen ko leeral ah du mën a ñàkk gomis parce que tamit yàlla dafa dogaloon ci man-manam ak kàttanam moom yàlla miy dogal démb ñu doon dencaat wala boog ñu doon ñu fasal soxna comme ni ngeen ko xame waa Babacar lañ doon ñaanal démb beneen soxna muy deuxième femme ah muy nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñoo ñuy suivre di leen ko yëgal xëy na sax am na ci ñoo xam ne yëg nañ ko am na ñoo xam ne yëguñu ko waaye bon rek pour ngeen xam ne loolu moom yàlla dogal na ko démb ñu ñaan yàlla tamit sëy boobu nga xam ne fas nañ ko démb ah euh, jëm ci man Babacar ak yàlla na yàlla def mu nekk sëy yi nga xam ne nii yu barkeel lay doon barkeel bi sallallahu alayhi wasallam ak sëy yi nga xam ne yëpp am nañ tamit yàlla na ko yàlla barkeel ñi amagul tamit yàlla na leen yàlla may waaye di ñaan yàlla tamit moom mi nga xam ne moom moo mën a defar yàlla na ma gën a defaral sama digganteeg sama ay soxna parce que yonent bi may ñu kàttan gu ñu leen yore ci lépp lu mu waroon ak xel bi xalaat bi ak dal gi ak yërmande ji yàlla na ko yàlla def waaye di jaajëfal tamit suma aaw teneng mention spéciale ndax moom waxat na waxatuma sax waxu aaw mais moom taxawaayu yaay la taxaw teneng ngom maa ngi koy nuyu di ko balu àq di balu àq ay mbokkam di leen ñaanal jàmm di wax ne moom gor la géer la garmi la olof na nag li ñëpp wax mooy dëgg du ku ñuy gërëmaa mais ku ñuy ñaanal yàlla la di ko soññ di ko wax ne ko mu ngi door a commencé liggéey bi teneng di la ñaanal yàlla njaboot googu ñu bokk yàlla na la yàlla yàlla na la yàlla def bañ la yóbbu màkk te incha allahu rabbi am nañ ci yàqin ndax macha allah jàmbaar nga muñ muñkat nga te jigéen nga ah sa jooj tamit du ma sax sarak rakk sa soxna soos di nga xam ne yaay njëkkeem di muy sa goro muy aram moomu tamit yal na leen yàlla boole ngeen nekk benn pour jàmm mën te bu soobee suñu borom am nañ ci yàqin ndax yéen ñaar ñëpp ku ci ne rek fi nga jóge xam nañ ko ndax ay doomu kilifa ngeen macha allah loolu moom tey ci man la jëm si woon olof nag neen courage jëmale sa kanam mu dël mais du mën a ñàkk mais tamit gomis balaa may ñëw si làmb ji il fallait que ma remercier ñi nga xam ne ñëpp ñëpp ñëpp bi loolu yëngutoo wala bi ñu ko déggee dugal nañ ci seen loxo ñii ñaanal nañ ma ñii woo ma téléphone remercier ma xam nga ñi yëkkat seen alal te ñoo ñëpp mënu ma leen lim mais am na ci ñoo xam ne il fallait que ma tudd leen ki ma si njëkk ki ma si jiital nag mooy Abdou Aziz Ndiaye borom Zador moom vraiment taxawaayam rafet na trop trop trop trop trop wax dëgg yàlla dégg na rek ne Babacar day takk soxna mu loo xam mu jëflanteeg man jëflante boo xam ne Aziz daal yàlla na yàlla gën a yokk sa kàttan gën a barkeel sa liggéey di ko ñaanal bépp doomu aadama Assane Fall tamit Global Textile defe naa démb lu ngeen gis lu aram sol moom la te laajuma cent franc Omar Tawa tamit la aram sol buñ ko ñawee ba mu rafet Omar Tawa la laajuma cent franc kon awma lu ma mën a wax lu du remercier leen ñooñ ñooñ ñëpp ak Fatou Dia suma jigéen nekk marché asalem di moom tamit gis nga ñu ku ci nekk taxaw nga ci ku ci nekk def ci li nga xam ne nii bon su ma fi nekkee di lim nag dinaa juum waaye Lamine Seck tamit Lutte TV moom li may wax rek moom ñett xamuñu waaye ñaar xam nañ mention spéciale ndax moom moment yi muy ñëw day nekk moment yoo xam ne nii ah, kenn du yow Lamine maa lay béggee bu baax a baax borom loolu di la ñaanal tamit yàlla na la yàlla may soxna ba mën la taxawu te incha allah rabi yàggatul dina am waaye du nuyu tamit ki nga xam ne mooy borom kër gi fi may liggéey liggéeyee Mamadou Seck tey damay cité turam moom itam gis naa taxawaayam bu baax a baax ci mbir mi Seck maa ngi lay remercier bu baax a baax a baax a baax di ñaan yàlla yàlla na la yàlla fay jëf jooju nga xam ne jëf nga ko si man barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba lii nga taxawal mu barkeel ba yegg fa nga xam ne nii fa la canal ak Binisport ak yëpp yegg wax dëgg yàlla kontaan naa trop di nuyu Aline Badara Diouf ñoom ñëpp Elas Gomis xule xule euh, Habib Seck Yagamar Assou abdu Saliou Balde yéen ñëpp ñëpp ñëpp su ma limee dinaa jub mais tamit di remercier sama ay rak waaye ñi ma bokkal papa Saliou Àll Ibrahima ñoom ñëpp suma ay mbokk samay dëkkandoo tamit waa ak yaay mention spéciale rawatina la la famille bopp ma koy commencé si taawu kër gi muy Moodu bopp ak ay rakkam ñoom saaliyu bopp Pape bopp ba ci Mbeng Mbaye bopp ñoom ñëpp maa ngi leen di remercier ak suñ doom bàjjen Seex Xuma mais di di remercier tamit ñi nga xam ne ni ñoom ñooy suma ay mbokk ba tey ñëpp parce que su may mbokk lañ sama doomu ndey Pape Niane mention spéciale oto yi moom location oto lay def fii ci Gibraltar Centenaire foofu la ne ci côté banque de l'habitat bi maa koy remercier ndax gis naa taxawaayam ci man ñoo bokk yaay de Habib maag suñu ñaari yaayee baay mais gis naa ni may taxaw Pape Niane maa ngi koy nuyu nuyu soxnaam Kumba Thiaw wala ay soxnaam Kumba ak Siga di ko wax mention tamit waa lamb encore une fois parce que démb gis naa ñoo xam ne ci li simple laa leen xamee Habib xaw ma seen kër te kilifa la ki may wax nii mu taal oto Moussa Dia ànd ak Abdou Waxal ñoom lamin ah ak Matar Sané dem ba ca fa ñuy ñaane jabar ja taal oto dem ba dëkk ba ba taal lañ ca bawal maa ngi leen di nuyu Moussa Dia yàlla na sa jàmm yàgg di la remercier di remercier képp koo xam ne nii parce que su may lim xam naa ne duma fi jóge waaw Makan Mbeng tamit maa ngi koy remercier doomu Gaston Mbeng gis naa bu baax a baax moom tamit nu mu si jàppee parce que olof na ne ku ko def ku ko wax la bëgg te Cheikh Abdoulaye Mbacke noonu ne géwél amul ku la def lu baax ku la nga wax ko waaye tamit di wax mention spéciale les lions en commençant par suma rakk yi suma xarit Saliou Cissé Sadio Mané Idrissa Gana Gueye Ismaïla Sarr Cheikhou Kouyaté yéen ñëpp idi nag dégg naa li ma wax idi duñ dof dinañ ci bàyyi xel bu baax a baax Idi Gueye di leen remercier yéen ñëpp waaye wulli mention spéciale wulli wulli waat yow it kenn du yow ah ak nga xam ne moom mooy doon jéego le milliardaire yéen ñëpp mbay guy gi Balla Gaye numéro 2 Modou Lo Tapha Tine Ama Gris du yéen ñëpp ñëpp suma limee dinaa juum ak promoteur yi ñoom Assane Ndiaye Fallou Ndiaye tamit mention spéciale ak waa Ndiaye production yëpp mor bu parcelle vraiment bu may lim du ma fi jóge mais il fallait que ma def lii tey di remercier tamit ay aram yëpp ay nijaayam ay nijaayam yëpp yëpp yëpp rawatina papaam depuis à l'étranger sëñ Assane maa ngi lay béggee bu baax di kontaan ci yow di nuyu tamit baayam bi nga xam moo nekk moom fii di papa ngal gu fay di ko nuyu di yaayam wax ne daal tey su ma nekkee foofu xam naa ne dinaa fa yàgg trop parce que ma xol moo set parce que ñu taxawu la dafa neex ci bés yu mel noonu di remercier daal vraiment ñëpp ñi nga xam ne taxawu nañ ma bu baax a baax mais waa ak yaay moom vraiment aw ma seen fay waaye sama aawa daal ku yebu ñaanalal ma ko yàlla maa ngi koy ñaanal teneen encore une fois yàlla na ko yàlla déggale ak ki nga xam ne moom mooy rakkam di gorom di léppam muy aram te am naa ci yàqin ndax li ma waxoon sànq rek ñaar ñu ñu yar lañu macha allah yàlla bu saytaan dox seen diggante wulli nag nee na nee na leen na ngeen moytu maire yi nga xam ne dañuy kii mais yàlla baax na di ñaan suma gars yi tey nag kon mu foofu laa doon ubbee loolu du mën a ñàkk parce que tamit noonu la demee 100 pour cent Babacar bi tamit gis naa leen ñoom Grand Laye ñoom Jiga ñoom gis naa taxawaay bi maître Pape tamit mention spéciale docteur Macoumba Diouf ak soxnaam Louis Senghor ñoo su ma dee lim buzz yow tamit maa ngi lay béggee bu baax a baax di kontaan ci yow waaw Ibrahima fay buzz bu Lutte TV Pape Thialis fay Leewtoo ñoom ñëpp dama doon diggee ak ñoom Ndeye Kumba Fall Aïssatou Faye bon Abdoulaye Dembélé sunu lamb ah bu may lim du ma fi jógee tey naa wax ñëpp rek gomis mu gàtt léegi ñu ñëw ci lamb ji <laughs> suñu lamb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi makan mbeng fa nekk tey doomu Gaston Mbeng ñoom nag ginnaaw bañ taxawale ay combat yu mag yu bëri lu bëri lu amateur yi soxloon ginnaaw bañ nga taxawale la leen dese lañ te jàpp ne bëgg nañ ko te ñu ngi cay dox mooy Modou lañ bëgg a jox ay avance du benn du ñaar ñetti avance ne nañ su bëggee ñu jox ko ko waaw adversaire tamit jàpp nañ ne muy ki nga xam ne moom mooy Balla Gaye di Eumeu Sène di Bombardier kum ci mën a doon pare nañ pour Modou su Modou bëggee ah loolu nag su dee Modou Lo pare na pour def ko yaakaar naa ne bëre la rek lu dundal la parce que un sportif moom pour man nekk si ay contrat yàqalu ko dara waaw nekk ci ay contrat yàqalu ko dara te defe naa itam gis nañ que ni fan yi ah waa Gaston production amee taxawaay bu mel noonu loolu tamit du lu am am solo terewul yeneen mbër yaa ngi am ay yeneen avance yeneen promoteur di bëree waaye loo ci mën a dégg daal bëgg nañ loolu Modou actuellement ku ne xam ne depuis daaw ba ren mu ngi ci benn combat boo xam ne digganteem ak Luc Nicolaï la ak Ama Baldé defe naa ne jàpp nañ date ba mois de décembre terewul bu fekkente ne waxtaan am na ci diggante Modou ak waa Gaston production ak ka tëgg di lig Nicolas parce que lépp ma sa sañoon dañ koy lal ci waxtaan ba nga xam ne yenn détails yi du am parce que am na lu fi amoon la fa parce que diggante Pape Thialis Faye ak Gaston ba Aziz Adela Ndiaye def ca ndox mu sedd yooyu yëpp nañ ko invité waat rek te defe naa ne war na mën a nekk ndax lig moom xam naa nekkul nit ku metti te yéen yeneen a muudu njariñ ndax ku ne xam na ne li mu joué ci carrière muudu bëri na kon defe naa waa Gaston production tamit bu ñu ko bëggee euh, warul man a jafe bu fekkente ne dox nañ ko jaar ci li ñu fi ñu war a jaar ndaxte Modou Lo ak Kalaf bokk na ci li ko révélé defe naa loolu waa Gaston production ñoo ko defoon kon Makan moo xëy waxee noonu ci sunu làmb Balla Gaye numéro 2 moom ma jël carte avance moom planning am moom ay combat moom yéeg li kay bàyyi sa ñëw 31 juillet mook Bombardier 2021 yàlla na ci yegg ak jàmm janvier 2022 mook Boy Niang yàlla na ci yegg ak jàmm juillet 2022 mook Gris Bordeaux yàlla nañ ci yegg ak jàmm euh, décembre 2022 làmb xëy tey indil ñu ko mu mel ni ki daal kon soo bëggee dégg dëgg moom Balla Gaye 2 planning boobu daal la ñu teg pour ay kombaam waaw Bombardier nag moom mooy nekk ouverture bi ndax ku ne xam na ne mook moom mooy njëkk a bëre le 31 juillet 2022 loolu defe naa ne ñaari weer a si des soo bëggee dégg dëgg ndax na ah gudd na waaye nag yàlla nañ fekkee te loo ci mën a dégg daal loolu moom mooy li sunu làmb xëy tey wax na ko keneen koo xam ne nii wax na tey ci sunu làmb muy Ahmed Konaté di coach su kaay baax kaay baax di écrit bu ne ci Tëngéej moom nag li mu xëy xamle daal ci diggante Franc ak Tyson 2 bi war a am le 19 juin te Vox Arena tëggu ko moom Ahmed Konaté jàpp na ne favori am na ci combat bi ki mu jàppee favori nag moom mooy Tyson numéro 2 te effectivement loolu moo am ndax tey boo leen xoolee ci palmarès ci wàllu lutte avec frappe tey numéro 2 moo jiitu Franc loolu la yàlla dogal lu tax mu mérito tey bëri ak Tyson numéro 2 kon defe naa loolu mooy sport waaye nag favori euh, ci ci ay gayit la papier yi waaye sur sur le terrain réalité ba fay nekk moom yow yaa ko fay indi pour mën a gañ sa adversaire waaye xam naa daal combat bu neex waa Vox Arena tëgg nañ ko ah di wax ne kon le 19 juin daal ku dem arène nationale daa fa gis lu doya doy waar kenn ko ñeneen ñoo xam ne tamit dañu boole seen ay doole comme mbooloo olof ne na mooy doole te yàlla jëkk ñu koo sant ah ci alxuraanul karim defe naa waa caaroy Cap Vert caaroy ndigal ak yeneen écrits yi dañoo dajaloo fas yéene fusionné nekk benn écrit defe naa lool tamit yàqul dara ndax defe naa boo demee caaroy ba si caaroy yëpp benn quartier bi la parce que à côté boobu ci côté géej gi def defe naa écrit yu bëri foofu la nekkee kon defe naa bam ba ca yeneen caaru caaroy garag yëpp war nañu mën a fusionné nekk benn écrit pourquoi pas yàqul dara ñu liggéey ànd doon benn waaw loolu yàqul dara lu baax la parce que gis nañ tey Fass ak Ndakaaru nañ mujj def fusionné nañ ànd di liggéey Amadou Kat Diop yor leen pour que parce que loolu mooy booloo mbooloo mooy doole ñoo xam ne du ngeen bëree yàggul ba bëree yéen a bokk quartier kay gomis war ngeen naan bokk benn écrit rek liggéey Sénégal jëm kanam loolu defe naa day neex drapeau sur le temps double vainqueur 120 kilos général Malika wane na fa boppam bu baax a baax a baax wax dëgg yàlla waaw wane na fa boppam bu baax moom général Malick ah moom nag ci lit simple loolu duñ ci bet ndax gis nañ ni ci wanee boppam moo tax yëglikaay bi nag xëy sampab laaj ne ko général lool nga def ca foofa ah ñu ngi xaar nga dëggal ko ci làmb yi dóor ji ndax ku ne xam na ne am na combat dóor diggante mag ki nga xam ne nii moom moo di fils de balle Assane Ndiaye moo tëgg boobu komba loolu defe na léegi mu ñëw Zal Mbaye manageru Mourou Anta moom tamit gis nañ ko ci yëglikaay bi ne Mourou Anta pare na 100 pour 100 pour bëreek Baboy maanaam mu doonte daal pare na pour croiser Baboy Zal tey di wax yëglikaay bi tamit ñëw na tey ci weekend bi nga xam ne nar naa jax aboy ak ki nga xam moom mooy fils de Zallo ca Tëngéej Dame Sène Ndande Fall arène nationale loolu di la waaye ba ca des muy dimanche ji di daj dëpp tamit mooy soq gàmmu géey te Baba Jaw jaar fa borom caam production loolu ci dimanche ji lay am mu mel ni kon weekend bu nar a tar la nu jëm ba tey buñ fa jógee buñ duggee record kan fay fekkaat mooy Gaston Mbeng moom tamit yëglikaay bi neen daal mu ngi deg maanaam mu ngi active maanaam mu ngi yëngu dox ay tànk ay jéego ngir ni muy def ba décrocher Modou Lo ngir wutal ko ay adversaire wala jox ko ay avance maanaam yëglikaay bi tamit ñëw na laajte implication Aziz ci mbirum Gaston ah nag li ma si jàpp mooy mooy dama jàpp ne rek Aziz du ci mbiru Gaston kese la impliqué wu ah. gis nañ ko feneen ak feneen ci làmb wax dëgg yàlla bu ñu waxee te dëgg rek te yàlla tax xëy na nag comme ni ñu koy waxee ñoom ñaar asso Gaston Aziz papaam la nijaayam la Aziz di doomam ñu war a mën a ànd liggéey te defe naa li itam liggéey rek mooy doole Euh, mbooloo mooy doole boole kook liggéey defe naa da ngeen di avancé jëm sa kanam yëglikaay bi di record a xëy tey ñëw ci loolu moom record tamit dikkal nañ si face à war am dimanche ca 2STV euh, war a dox si diggante Moussa Ndoye ak Sa Thiès yëglikaay bi ñëw na ci Eumeu seen tamit ci ajuma ji ca Gàmbi yëglikaay bi ba tey ñëw na ci loolu moom record waaye tey foto sunu lamb bi ah gis nga tey li mu photo lu ñu ko la 4 juillet Abdou Diouf Giri 2 benn combat bu nar a neex jéy seen moo fa jaar kon loolu moo fi ñëwoon tey gaa yi di kontaan ci ñëpp waaye l'international du ma ko fàtte Youssou Ndoye moom it di suma xarit maa ngi lay bége Youssou maa ngi lay bége di nuyu sa yaay sunu yaay soxna Penda suma yaay yaay booy maa lay bége di nuyu Mami Ndoye di nuyu famille bi yëpp waaye di nuyu tamit ñoom Fallou Niang waa groupe baax tamit duma leen fàtte rawatina Massamba Dieye président ñoom Sora Malick laat bu Eumeu Sène wala boog laat bu armée bàyyi laat maa ngi lay bége ñoom xaadim ja sëñ xaadim maa ngi koy bëggee bu fas ñoom ñëpp maa ngi lay bëggee groupe baax ah di nuyu waa Njaay production waa axlu làmb ah jeune amateur yi tamit góorandooy maa ngi bu baax a baax a baax a baax moom tamit gis naa taxawaayam di nuyu le président du Dianjeko di nuyu képp koo xam ne askanu làmb nga parce que vraiment daal ah, xëy na néew defuñu takk boo xam ne xew la gomis mais gis nañ ni ñu taxawee ak niñ ci réagi réaction yi si am mu nekk ay réaction yoo xam ne yu neex a neex la Nabou Ngom tamit VIP people maa ngi koy bégee bu baax a baax a baax a baax a baax di ñaan jàmm di wax ne que daal kontaan naa si ñëpp waa sen baaba Babacar bu Modou Lama duma ko fàtte moom tamit ba da jonn moom tamit maa ngay béggee bu baax a baax a baax a baax di ñaanal ñépp jàmm di wax ne matériel yaa ngi nii walaatu diw li na ngi nii doo sonn da ngay togg mu neex amul cholestérol amul luy gaañe macrone baa ngi nii sama mbokk séréer yi xam moo ab séréer la te dañoo bëgg macaroni xam nga kii boo ko booleeg la mu war a àndal macaroni def ci sa sador xulle looy waxati bul daanu yow da ngaa war a taxaw nii nga war def jon nga war a def cinq litres baa ngi nii kii moom sa waañ ngay teg waaw saa yoo xëyere xelli defar sa firir mbaa sa macaroni sa couscous sa vermicelle loo bëgg a def cere cere taalaale ki ya ci man xam ngeen taalaale gumis xam nga taalaale <tsk> yow xamoo taalaale ba tey bii un litre la mu ngi nii ba tey Zador am na moutarde di ngeen ko gis am na tie am na yeneen ak yeneen kon avec Zator tout est possible Ibou Laye bu xarañ loo su ma waajooju tamit maa ngi koy bëggee borom pour oto kenn du moom maa ngi koy ziar bu baax a baax moom su ma nit la moom dafa taal otom ñëw ba suma kër bi may ngénte suma doom la fois passé daaw jéeg xaw ma daaw kenn du moom maa ngi koy béggee ibulaay bu xarañ loo di nuyu tamit Papa Guèye ministère des finances Papa Guèye doomu ki nga xam ne nii moom moo di ah père ba parce que père ba ku ne xam ne ne mooy papa yi ñooñu kon maa ngi nuyu Papa Guèye bu baax a baax a baax a baax a baax a baax Papa Guèye oto école wala ma ne boog Papa ministère des finances otegol ji sax maa ngi jum beneen Papa Gueye laa koy jaawale waaye bii moom ministère des finances la dëkk di doomu parcelle ak jàmmalaay maa lay bëggee gars yi Zador a ngi nii Ami Diouf nag tey nekk fi daa dem Gayndiaye dafa seeti maire bi muy nuyu waa Gayndiaye rawatina le maire de Gayndiaye Pape Songe maa ngi koy nuyu mais di nuyu Ami Diouf bu baax a baax a baax kon Gomis ñu joxante dig daje rek beneen yoon waaye weekend bi moom xaar leen ay reportage di ngeen ko am parce que nag fi mu nekk nii moom batterie bi dafa chargé waat yi lay lay chargé waat na di ngeen am ay rapport <laughs> soq gàmmu géey ndam di faal daam seet surtout soq gàmmu géey laa ilaaha illallaah Baba Diaw kenn du yow maa ngi lay bëgg yaak am di Moustapha am leen jàmm am di Moustapha bu daam seen yow tamit kontaane naa la kon gars yi <laughs> jam production borom la treize ca Gambia muy nuyu waa Gambi kenn du jëm leket ak France foofu day ne xule xam na fi may wax dem na Gambi xam na euh, Sénégambia xulle ñam na fa bi kanu na fa <laughs> kon gaay ba beneen yoon